Thank you. ndaw yi nu tànn ci mairie bu Touba wote nanu budget bi toll ci juróomi milliards yu manqué yi maanaam ci xayma ñeenti milliards ak juróom ñeenti téeméeri millions ak lu tegal loolee nag mooy wàllub recette ak dépense bi ñu ko équilibré ngir nag doxal ci wàllub gestion ba gën a mën a yembal nekkinu askan wi waaye nag laata ñuy amal woote bii ay kàddu jib na fa tukkee si ay conseillers doon njabootu Serigne Touba ñoom nag jàpp nañu ni dafa am lu mënatul wey si biir commune bu Touba mooy adjoint au maire yi nga xamante ni ñoom lañ toftal si maire bii di Abdou Lahad te nag bi leen fale ba léegi juróomi at mësuñoo jaar si. benn conseil municipal boole kook di jël seen ay yelleef lu si mel ni gasoil ak tamit indemnité mensuelle Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Cheikhouna Abdoul Ahad Mbacke moo njëkk a yëkkati kàddu ñaawlu ko ba ñu sax nag ba lim ay tur. tax yooyu mooy dañ ñu jox ab commission wala ñu jox la action nga nekk fi toog atum yàlla doxaloo dañ lay dindi te duñ la tàgg. loolu moo doon tënk ba. loolu comme loola dañ na nag. loolu mooy loi bi loolu mooy loi bi. noo bëgg rafet bi wax. ma woo leen ngir li ñu ay kilifa jërëjëf n'importe quelle personne duñ ko def Matar Diop a nga neen Dakar jaaru fi suñ Cheikh a nga ne jaaru Alaaji Ndiaye programme xaw ko tee ñëw institut institut jërëjëf Cheikh Thioro noonu léegi pourquoi loolu dañ ñoo ëpp pexe dañ ñoo gën a bëgg a dund jërëjëf sëñ Sidi réew mi xam sëñ Sidi jërëjëf sëñ sëñ sëñ Sidi beneen bi sëñ sëñ sëñ ñoom mënuñu ñëw të mais nag am na ci loolu qui est responsable maire. merci merci boobu yow la concerné boo ko defoon suba suba ñu ñëw bu dee ñoom la jàkkaarloo ñoom. bi mu daanelee la sëriñ Xadim Mbacke moom sëriñ Abdou Fatah Mbacke moom sëriñ Fallou moom it jaaraat fu ni mel ñaawlu wan ginnaaw bi nga xamante ni kilifa yi ñu tabb si maire bu Touba amal nan ko boobu ba léegi. yëf yi sëñ Bamba ko moom du maam yi kenn moomu ko ndax sëñ Bamba maam yi ñëpp la waaye sëñ diw ak sëñ diw moom ak sàmba diw ba ci. Moussa Yacine Gueye dégg naa ko fi te mosuma ko fee gis ay madika ñaa ngi yëpp lañ ci nañ leen ci génne seet ñi mën a liggéey Sëñ Tuubaa ñu ñu teg leen ci liggéey Sëñ mooy dëgg ndax ñun ñi li ñuy ñàkk li ñuy waye waye comme ni waxee saa bu ngeen wootee ñooy ñëw man de saa bu ngeen ma gisul benn nekkuma ci réew mi wala damaa nekk ci ndigal waaye saa bu ñu wootee fas na maa yéene ñëw sama moroom yi nga xam ne bu ñu wootee ñu ñëw te bëgg liggéey Sëñ Bàmba teg teg ci ci yoonu ñu liggéey Sëñ Bàmba ñi nga xam te ne bëgguñoo liggéey Sëñ Bàmba wala ñee dañee xat-xatlu wala ñuy ñuy ñuy jafe-jafelu ñun ñoom ñoom yem képp ci sëñ Tuubaa ndax sëñ diwa leen jur sëñ diw jur leen sëñ Bàmba jur leen te mënuñu ci ñu daa mu jur sëñ Fallou ko jur sëñ Tuubaa ko jur débat yi di wéy ñu amal nag woote budget bi naka noonee lu ëpp si biir salle bi yëkk di seen loxo ànd si waane jàmbat yooyu si kaw lan moo si gisinu maire bu Touba Abdoul Ahad Kade moom jàpp na ni ab taalibe dong la alalu jaamur la yor te nag en tant que maire du moom mooy digal. ñenn ñi ay conseil lañ ñenn ñi ay euh, membre du bureau municipal donc di adjoint maire donc loolu nag ñoom constaté nañ wax nañ ko plusieurs fois ne absence yi dafay metti pourquoi toujours ñuy absenté war nañuy ñëw di teew ci liggéey bi di wax xëy na loolu ñoom. ñoom gën a placé pour wax ko ñoom wax nañ ko mais man am na ci loo xam ne sama taalibe permettre ko am na ci loo xam ne du sama sañ-sañ parce du maa leen tànn conseil municipal yu Touba diirub lu ëpp juróomi waxtu toog waxtaan lañ bët document bi tukkee ko ci débat d'orientation budgétaire laataa ñu koy wote fës seen wéyal confiance bi kilifa yi ak askan wi am ci ñoom.